09 71 ñi ngi sur Instagram ak sur Facebook Thiès habillement officiel. ci Sénégal rawatina mbokki Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar nee naa la yow mi tabax sa kër ba mu yaanji yow mi tabax sa structure ba mu mënti doon ba mu yaanji jaaxle ci wàllum peinture mën la sa jaaxle jeex na tàkk waaw waaw ndax waa King Paints bañ egsee biir Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar plus aéroport ba tey kenn jàmbatul ci wàllum peinture bu baax te ak qualité man la waaw waaw yow mi nga xamante ni nii rek da ngay doon li nga xamante ne moo di particulier bëgg sunu marque King Paints waxul ba ci kenkaayri bi la gën jige rek nga wax ko marque bu baax bi marque bu woon muy king pens moom mu den la wan couleur yi bari te wuute te ànd ak qualité te rafet nee naa la da ngay peintre tey fanaan ci tey ndax waa king pens qualité rek la ñuy jaay nga doon quincaillerie wala nga doon distributeur bu mag soxla suñuy marque ñun waa king pens da ngay def 77 796 49 49 gisoo yow yow da man daal demoon naa nag ba mere la de demoon naa ba mujj na man kii bu duggatee ci réew mii boo ko gisee danaa joteeg moom ah yàgg nga àll yàgg nga àll waaye nag alhamdulilah ba nga ñëwaatee ni ngeen def ak coono yi alhamdulilah kay tabaarikàlla kay ni ngeen def ak liggéey ba alhamdulilah kay tabaarikàlla ñëpp ngay am jàmm alhamdulilah kay tabaarikàlla kay mbaa ngi dégg waa kër ga alhamdulilah kay ana sa ñoom ana sa baay ñoom alhamdulilah kay tabaarikàlla kay ni ngeen def ak liggéey ba alhamdulilah kay ndeysaan iso ay yàlla ci ay yàlla <laughs> doy na waar de wallaay wallaay wallaay doy na mais nag alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah sant yàlla bu wér nii la àdduna nii la boo demee ba mu yàgg da jékki-jékki nga ñëwaat ndax tubaarkàlla yow boo seetloo fii bi nga fii ne si sax ndaw metti woon na lool nu gis lépp nu gis lépp mu metti woon lool ci sa boor waaye sunu borom bu dee ñëw moom day ñëw te yàlla ku bind rek am na wërsëg bu def ci sa jëbi yàllaa ku leen day ñëw waaw wërsëg bi mu def sa jëbi boo muñee rek te nangoo liggéey fajal jël yëfi jàmbur wërsëg woowee day ñew tok yow kula xamone xamni jambar nga kula xamone xamni jambar nga ben sikki do nga amone moy xew wo fekkee xew wo fekkee bay mo te nga bañu dugg ci bay bàyyi da ngeen seet fa ñuy fee seen ndawal nga ngeen sacc fay sacc fay kilo yóbbu bàyyi moor léegi kilifa laa bàyyi ah waay de ah yooyu ayo yooyu de war nga ko bay mo yooyu de war nga koo bàyyi dèjà ngeen de ngeen de ngeen de soxna Diop ah, nga tan leen don nax naan police ñew na da nga ñëwoon ma fat la ca nga fa nga fa nga dugg ci armoire ba ma tëj la. waaye moom papa. ndeysaan papa boo fàttali ko yooyu damay damay am gerte la waaye lépp cant la rek. lépp cant la rek bilaay lépp cant la mbaa mbaa mbaa mbaa fa nga ne mbaa am nga soxna. ah Baye Mor man de bokk na ci li ma indi ci biir réew mi. loolee bokk na ci tànk yi. ah amoo. jamono ji amaguma. ah ba yëg soo ah Baye Mor di wër xale bu yaru. xale bu yam cey loxo xale bu baax. neel alhamdulilah. alhamdulilah. am nga. ah maa la wax loolu ma ni dinaa la taxaw taxawu bàyyi dinaa la taxaw taxaw nijaay jàppal ne am nga soxna. a ah, baay Mor yow loolu wax jooju moom. ma do do xamoon nga keleer sama doom. Wah, ana tata akeler. Tata ana akeler. Tat ñanga jagor nga. Keler bon bi may bi may je me rappelle bi may quitté. Elle était toute petite là. Bobo lu mo tax nga faté ko. Sasuna nunana sasunando sasuna nunana. Ngari. Da ngay salsa. Salsa bi na dak bis niki tay. Yaa mom salsa yo. Yo, xam nga na ma yaa mom salsa. Yo ngari yo war nga nek fi nan da ngay dem wuti ji benen jabar. ngaari man aw ma salaamaaleykum. am nga salaamaaleykum. aw ma maaleykum salaam. am nga maaleykum salaam. ok matuma tudd. am nga yenn ren a jàmm mat nga tudd man nga dëbësi. waaw ba ci tam xarit. waaw léegi lan la woon. waaw kay eh, ngaari lan nga gisul ci man ba di ko wuti keneen loolu laa bëgg a xam. yow nit ñi dañuy wax rek. loolu wax yow yow yow looy wuti ñaare yow ngaari ñaaw nga doo bàyyi ba ma wax la ko. sa sikkim bon na sa bakkan ni doomu guro. yo fi mu eh, eh, ya, eh. ne nii sa kanam a ngi mel ni ànd. waaw jabar. mais li nga gis ci man nit mën na ko gis ci man xam nga yaa ngi nii gis nga loolu lepp ci man nit mën na ma bëggee loolu. yow ci kim bi melni ni ak yoy nit mën na ma bëggee loolu. yow ci lu way def rek bu la méttee da nga koy sa bop non sama xol baa tang na genn ay waay bàyyi na yow ngoon yow looy def ni yow. yow xam nga li ci dóor sa jëkkër yow. non xam nga li ci dóor sa jëkkër. ndaari xam nga dama am rap man xam naa loolu xam naa ma lay expliquer ni waw ndaari bay sama loxo. non duma bay sa loxo nga may gaañ ngoone loolu ko def xalaatuma ko du ma bàyyi sa loxo nga may dóor. Ndiary bàyyi sama loxo. bàyyi bàyyiwuma bàyyiwuma bàyyiwuma. Ndiary kafuma. man it kafuma bàyyi. yow yow da ngay takk ñaareel. Mafal. dafa ma lay rey gannaaw ma Mafal. Mafal bàyyi li nga def waay. ah Mafal lay takk bàyyi li nga def. dama lay laaj ba xam Mafal moo lay takk. non Mafal takkalu ma. taxal ma expliqué la man soq sax am na lu ma loolu moo ma gën a metti yow war ngaa jël sa lëgët bi ne fi di ko wan soq pour lan xam ngeen may sosal yaa soq laa wax soq moo ko te dëgg am nga lëgët fii man gis naa ko lu xam nga ne man yoo xam nga ni man góor duma tim bu dul yow man lu ma ci wóor loolu wóoruma waaye nag yaa ko xam gis nga fii ñaareel bu fi taxawee sa deret day këpp dafay ñëw ba mu neex ko ah. yow man lijjantiwuma la yow lijjantiwuma la faale wu ma la ngoone lu tuuti la woon waaye léegi toir kàll mat na sëkk te bi muy te li muy nekk lu ndaw ndaw ndaw elle était très calme déggoo li ma la wax te noonu la jànge nii may wax ak yow am na baccalauréat am te ndax dégg nga ma te na nga ko fi bàyyee woon noonee la mel man xam nga ni man xam nga ni damaa tàngan xam nga damaa naqari déet waaw yow moom génn bi bëgguma ko ngaraj ngaraj ji bëgguma ko jaabante bi bëgguma ko génnum guddi amul bu demee ñëw sa gën a ca ya. ba ni mu ci njàng mi nekk ci liggéeyam di liggéey te bàyyi na ma sax di liggéey te tubaarkal la wax dëgg yàlla jigéen la. yaay jëla jël xonk na coy ba noppi ne solide ca kaw. Ah. waaw waaw waaw ah, xonk na coy ba noppi ne solide njool ca kaw jigéen la. bind baa baax mbaa. dama ni man la bind baa baax waaye ni ko xale yi waxee nga baal ma mi dagg ba sama doom dagg baa baax. <laughs> papa papa papa nag maa ngi maa ngi maa ngi doog xam ni maanaam li newoon ci yow. dara jóg maa la wax loolu ci dëggu gi mhm. ci ci ci solution gi mhm. te fu ma jaaxlee ñëwaan taxaw nga taxaw ma mi ngi noonu yaa ngi koy fàttali léegi jamono ñu daan def suñu jéyee jamonoy xale sa kër lañ daal ñëw làkk billaay billaay ndeysaan tey jamono doxee tamit ba li jaar ci diggante yëpp jaar ci ndeysaan mu ñëwaat wax la sama soxla billaay wallaay ma ci billaay wallaay saafara nii billaay wallaay um di que te remercier billaay wallaay ndax ndax xam nga nit moom jikkoom rek nga koy seedeel te yow kenn gënu la te ni nga nekké won ci koñ bi xamna xam naa ba léegi dañu yow daanaka bu wéso yëfi goné jullite nga juma ja kenn dawla jitt fa mag ñu rangee ya fa mag ñi duggé yaa ngi seen gannaaw taxaw te loolu lañ bëgg ci nit nit bala dara xew julliteel bala dara xew maanaam julliteel di jëfé jëfi jullit waxtu mu la raw te man loolu la gis ci yow kon nak buma bëggé jël sama dom jox la ko soxna def na li ma war te inshallah rabbi mom la lay may bis bo paré ne ma nopi na ma jël ko jox la. jeex na jeex na Baye Mor dem ñu ñu Dina la wo dina la wo ñu gisé ñu gën cee waxtaan pour tank lolé ndax li nga mo wax ni dal bok na di la wax rek sama ñël bénni wax. limay ma mhm. waat Sénégal bok na ci tank yoyé ma faju na ma nga né mu faju na donc moy ma dem tok waxtaan. wo la ñu waxtaan jeex na maa nga lay xaar. <laughs> ma nga lay xaar. sa Sarité nag ñëwagul. ah de indil nga ma parfum bu neex. ak waaw montar gu rafet la nga yàgg a xam girif nag kaay moon surtout xet gu neex man xam nga damaa bëgg xet gu neex fexeel naa am parfum de waaw koy baax na jërëjëf jërëjëf jërëjëf nir ma waa kër jërëjëf ndeysaan àdduna waay tey yàlla waaw xool ko te moom day ah arkell moom otom bi rafet na ni kii da xanaa da koo di ndaali fii ay waay otom gi rafet na torop torop waay ah ay waay alhamdulilah waay yàlla yow da ban parce que yow li ma la muñal sa digg kër gi yow sa dépense matul yow sa matul dara matul man may lijeenti di def sama ndey di ma jox may lijeenti di def yow ma faan nga xam mo la yor yow da nga yor dara bay tak dara yow lo yor bay tak laa lay laaj dimbali ma dafay daago neex ko ah, daago man li ma yor bay tak xam na ko man tay xam na ko rek na daago day ñew. bu dee jéeg na daago ko duma bam bëgg Do ko def dara baax da? Way do ma may jamm yow yow de bu boba na nga xam yow yaa dem jël sa lëgët bi ne fi di ko wan soq lëgëtu profondeur lan la ko soq di xoolee. yaa soq yaa soq waay soq xoolal raado bu yaboo man nag damay takk man yéen doo leen yàq sama der ca diggu Cees gi. du ma ko nangu de loolu ñëpp xam nañ ko amoo jom doo ma dimbale yow yaa ma gën a ñàkk jom daari yaa ya yaa ma gën a bon yow waxoon nañ ma ko nag ndax tere woon nañ ma man ma moom tere woon nañ ma ni ma bu ma dugg ci yow ndax yow doo sama nawle parce que yow yaadul sama nawle yow yow mi jël sa lëgëti ko woon sox yow waaye dimbali ma yow yow yaa ma war a dimbali yow yéen de fu jigéen toogee muñ yéen góor war a leen faa toogee ya, muñ foo demee war a sa lëgët ma takk fa beneen jabar loolu damay takk fa force fara force doole ma waaw aca ya yaa ko dul defati yow su ma la nee da nga am la yow la dugg nga ci baraag bu bari pol yow yaa dugg ci oto bu bari vitesse yow waaw yow non ngaari yow sañoo loolu yow yaa sañul loolu yow waaye doo dimbali waaw yow su la doré di nga xam lepp deug la yow yow ngay yow yow yow yow boy bu lo mani sax xam na ne yow soo dalay doxal way doxaan je vais te tuer waaye yow je vais te tuer yow yow je vais te tuer yow di waa merde yow way yow warta bu taanu yow yow ngay taxawaalu kat so amé ma takal lu wujj doo daw bëre ngay defi di ma di ma fenal nan ma yow ya def ya def la yow war nga dem jël tay affaire diko won wan soox ah man loolu moo ma gën a ci affaire bi loolu rek mo taw bëgg tak takk sa morom boo xam du jël daraam di ko wan soox taxawal kat bi man ma gëram a met jël sa yaram bi diko ko exposé ci bir dëkk bi ñak fayda bay bëgg dé ah yow nga dem di won sokk sa ca spindring yi waaye yow tu ma merde wa yow dafa wute jamonoy tey ji dafa tëj ñu maytu gaaran raxas leen xol yi yàlla bur bi ne loowul loo fi nañu maytu gaaral raxas leen xol yi yàlla ma ne dara ndax aji may baayam waaye yow mi yaay di jaayam ah, nga bokk ak ndeyam ndey baay mhm. lu ma am si aji rek am nga ko ci moom ah, te ku ne xam ne doomu séeréer. Mhm. ndijaay ji mooy lépp. ah waaw loolu dëgg la moom. du doon bàyyam de ndijaay ji lay doon. Ah, waaw te boo amoon xam-xam tey aji moom lay doon man mi sama sama jarbaata may doon. <laughs> am na ko sax xam-xam bi ma yor moom dina ci am. incha allah mu na maanaam ah. waxin la rek. Mhm. aji dafay ñëw jamono yii paase. Mhm. waxtaan ak man. Ah, ne la am ku baa ku ma bëggante réewu taax sa Thiès. Hmm. ah yàlla dogal ma ne ko man da xam ngeen ay caaxaan aw ma ko te toll nga si mata sëy Mhm. so gisee ku la doy nag ba mu jaral la nga jógee Thiès. Ah. ñëw ba fii si Fandit. Mhm. di waxtaan ak man si koo bëggantel su fi ñëwee ah dinaa la ko may. waaw te xamaa seen di jaay ñàkk caaxaan gu ci man gu ci pire moo ne ci moom. waaw moom kay bu gisee ko mu bëggantel ca Thiès gale. waaw moom duñ ci duñ ci toog sax. muy bi ma waxee loolu. Mhm. yàlla def ki fi ñëw di bëggante ak aji xam nga kan la. xam naa ne moom xam gi nga ko xam su ma la ko waxee dina la yéem. ah déet yow kay bëggante ak aji Thiès jënd nga ba xam ko yow. déet ni ma ko xamee noonu nga ko xamee wóor na yàlla ah man mi xam nga ku mu doon. kan la sunu jamonoy lamb ji fi xam nga gën ya nga fatlu fàttaliku gën. yow wa nga dëgg yow gën <laughs> la ilaha illallah mo la fi daanon jël bu reuy ba mu fa daan te ni ko di wax ba leg waaw te mu joxoon lan nak ba. waaw ak la yow aji sax la ngeen doon di moom. gën moomu nag gën moomu. waaw mooy bëgganteeg aji. ci yalla yalla moy Karim. Keller. ah. man mm. eh, la Keller. waaw damaa ñëw pour waxtaan. fi ma fekk nii ma fekk nii naa trop trop trop caay ah yoon bi jàngi démb yi la. papa. te damaa bëggoon waxtaan de. malgré li fi jot a xew yëpp maa ngi tuub di jéggalu ndax xam naa ne waajur nga te boo ma ñaanalee damay dal mm-hmm. leen laa buggoon nga baal ma àkk ci li fi jot a xew. Mm-hmm. Ah, waaw gis nga waajur waajur sàmm la ci juróom ci ci njabootam day mel na sàmm bi nekk ci àll yorub juróom. te booy rek njaboot te sàmmu lin nam ware tegoo lin ci yoon ëllëg dan ko layo mooy waral may sonn ci yow di xar sama tànk tubé ci yow loo bëgg rek mas naa jaat loo bëgg taxaw naa ca amul lenn loo mës a bëgg rek te taxawuma ca daaw fii ba nga nee ma vacances Maroc lu ma la wax danaa woo sa nijaay laay ma fane da ma daggal la billet aller retour nga dem vacances fa dafa ñaari weer yu mat nga war a ñibbi si ma jëlub xaalis yónnee la ne la jëndal lu la neex nga jënd jënd jënd ba jëndaaleel may jàllaaba indi jàllaaba yooyu tey fi mu ne bu ma solee sama xol bi day sedd guy ndax dama naan lii sama doom ko jox man am na fu ma a teg kenn du jur doom bañ ko mbaam wéq na doom mbaam wéq na doom ja waaye bañu ko bëgg nga tegu ci yoon yoonu baax moo tax may may xataraayoo ko yuuxu waaye du bañ la du bañ la daa fekk rek nag ne am na yu moom mën maa ko bëggut bëgguma ko koñ bi gis nga ni ma fi mel autorité bu mag lan ma def ci koñ bi loolu nga war koo sago war koo tiitaru waaye booy booy doxalee nenn ni man daf may jaaxal ni ñi sa yaay ji la jur melul noonu man mi sa bay mi baay meluma noonu te yoruma jikko bobu kon du sama dom yoree jikko bobu dama nan mbedd mi yak nako ko baaxut de bu ko defat de waaw papa len la bu a xam nit ñi di ngawti ŋawtee deug la nit ñi yaajul ñaaw sama aqulahi taala laay wax ak yow dom nga te nawle nga dom nawle na nee dom bu sole dalu lu mu jot ko Kok mat na te sama nawle ka malay watal fi ci yalla malay watal ci yalla ne la loolu yi nuy wax lepp billahi dara ko ci billahi wallahi mën na la koo ci alquran tan ak yow say ñu toge hmm. nga ne man nan lay def ba fay gën nu may def ba fay gën ay wa yalla yalla moy karim wallahi ba mu ñëwee and ak gën na moom man mi maa bëgg rek aji. lu jóge ci man mënu mu la ko wax. ndeysaan léegi nag ah. lu jot jot na gannaaw dee. waaye nag balaa li jot di jot. waaw ah. yow nga yaakaar ne gën moom du du kii du âgé ci aji. waaye aji gone la de. yow xanaa gisoo gën. xaaral ma nga gën tey la gën a bari doole. ah moom ak jarbaat ma mu àndal. ba mu ne ko cas doole ja gën na yor. Eh. damaa defoon jeexal na. ah kon baax na man dal loolu aji kay laaj ñeewantal ci gën waaye du gën. Ah. man kay lu leer la la wax kon gën nga ci batay tey léegi li ma wax moy waaw toogaay jeex mhm. al khamis la ko wax ah bi ni ah yi aw gën taranga ji ma defal ci penc mii ah, loolu mënu ma ko doko ko gàntal demal ma ci imam dem ci chef de village mhm. sama dëkkandoo ak sama xarit sama wala rëy yëpp bul baye ken yow na sa xel dal dem na ci ñom waye yow mi di delu wat fa na sa xel dal tundu yi ñu rek waaw kenn kenn kep ku fi nek la wax. dina la ko wax ne la sama jarbaat bi dama koy may inshallah rabbi ndax mako wara may bon nak mu ngok kon nak Sam Xew la yegle sa mbir la. inshallah rabbi ñepp dina dug ci ñom porte à porte la koy def porte porte jooju nga ko nga di wax. Ah. dina ko porte à porte bu ñepp yëg. inshallah yaay ne yaay bi yaay bi waaw ñëpp incha allah rabi. laa ilaha illallah ay waji man aji mi teraanga ji ma def nii. waaye ndett de waye di man xamna naa ne leen de fam ndeysaan fu mu tëdd sa yomal xiyam ku ne ko gën mooy takk aji ndett dekki ñëwaat. ka ne la loolu yow nag sa doom nga say nopp nguuruma laa nëpp nguuruma laa nëpp way juróom wu jigéen te jamono bu yàgg ba ca dëkk ba te jamono bu yàgg ba laay wax de ca dëkk ba man man ak moom doon nan ànd maanaam waye da dem ba tollu ben jamono ci lako baye bàyyi mi gis fekk man bobu nyau na dëkk ba ñew ndaga eh, ci Cees gi di liggéey ci ci lan ko fa ci lako jël soxna ci lako jël soxna takk waye musuma am ak mom ab tuut tànk lii moom dénku la te ni ma la ko bu la neexé demal ba ca mom sol saw dal nii la koy waxee ku dee yàgg sa bàmmeel kay. Ah, ak di jot a xew yëpp ngeen di juróom xanaa di ma ko may. Hmm? Hmm? ne. ak ko may. may la. ah comme que bokkuñu papa kay. Ah, déet gis nga nag euh, keleer yow loo tëgg rax ca përëm te sa raxas day fuqi ndab bu waxtaan wi neex rek nu ne la attaaya ji neex na ngay fuuralee tànk dégg loolu yi moom bëgg naa ca nga dénn ko ci sa xel mi dañuy waxtaan rek xam nga dangaa ñëw pour ñu waxtaan man la tax ma ni la bëgguma nga sëy ak moom man xam naa ko woy juróom wu góor xam na ko seeni nopp da ngeen di gone waaye am na lu baree bari loo xam ne waru leen koo xam génneel sa sa xel mii ci moom sa xel mii génn ko ci moom kii mënu laa yor mënu laa toppatoo te fa mu bokk baaxul. fan la bokk. fi mu bokk fi mu bokk baaxul baaxul xam naa ko bu ma insister rek maanaam bul bul bul sax nekk di expliquer ak di wax te mënu laa yor. te man sama doom bëgg naa bu mu ko dee dugal cib sëy dugal ko foo xam ne bii ne dana amub toppatoo bu baax hmm? yow bëgg nga ma dugal la foo xam ne bii ne li nga doon am sa kër bàyyi doo ko fa kenn ñaan ko. ah mi ngi noonu kon wax ja jeex na. man nag papa maa ngi waxtaan ak yow. nga téye fi li may def nag xam naa ko. mu ne. li may def xam naa ko. waaye yéen mi lu ko dal waaw loolu lay nekk nga xam ni man ak yow nga xam ni maa la jur boo dëgër bopp mën nga fiy fekk. Sénégal rawatina mbokki Ceeskaay benn dëkk ñaari gaar nee naa la yow mi tabax sa kër ba mu yànji yow mi tabax sa structure ba mu mënti doon ba mu yànji jaaxle ci wàllum peinture mën la sa jaaxle jeex na tàkk waaw waaw ndax waa King Paints bañ egsee biir Ceeskaay ñaari gaar plus ba tey kenn jàmbatul ci wàllum peinture bu baax te ànd ak qualité man la waaw waaw yow mi nga xamante ne nii rek da ngay doon li nga xamante ne moo di particulier bëgg suñu marque King Paints waxul ba ci kinkaayri bi la gën a jige rek nga wax ko marque bu baax bi marque bu wóor bi muy King Paints moom bu den la wan couleur yi bari te wuute te ànd ak qualité rafet peintre tay fanaan tay ndax wa King Pens qualité rek la ñuy jaay nga doon quincaillerie wala nga doon distributeur bu mag soxla suñuy marque ñun wa King Pens da ngay def 77 796 49 49 Chess habillement di grossiste ci ay africaines. africaine boo amee sa boutique di jaay tissu bu leen neexee nga ñëw indi sa marque ñu le la say tenue nga des di dem jaayiwaat ndax yaa moom say tissu revendeur. Il yi tamit seeni partenaire lañu Chess habillement am na ay machine ordinateur dernière génération Chess habillement grossiste lañu tamit en chaussures waa diaspora def leen seen commande nous livrer les DHL yéen ñi Mali Gambie Burkina Gabon ñew len ties habillement ñu defal len seen paquet ngeen yobbu jëlal numéro bi 77 774 09 71 ñi sur Instagram ak sur Facebook ties habillement officiel.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 ce fini les lèvres noires le secret avec Zo Beauty Cosmétique ku fi sa tuñ ñuul désormais yaa ko teg sa t'as wutal VIP lèvres roses mu faj sa aajo N'y a pas de ci Ndakaaru waaye mën maintenant le livrer partout au Sénégal On gaaw ci 77 127 68 86 ou le 77 067 96 03 Zo Beauty Cosmétique mooy sunu choice y'a.